d'accord, fan yi neexul ak euh, taw tay euh yow euh, avocat nga way parti politique bu ñaan USL Union Socialiste Libérale Georges ci jop kon ñu lay dalal tay ci RFM matin ma fat ni sa parti itam dafa bokk ci benen mbotay wax M24 demb amna geneen qui ngeen euh, ci bi nas jëm ci démocratie liberté dañ ci del xew-xew dab ci Afrique coup d'état ti melnani ci Gabon euh, gannaaw élection yi fa am bañ ni sax biig Ali Bongo mo gagné wat wara togat waaye dañ caa tégi minute mbaa kupp waxtu rek euh, ay soldaar euh, da di né jël nañ nguur ga génne télé ba wax ko nu gissé xew-xew yoy di xew tay ci suba gi ci Gabon. waaw lolu ni ko gissé moom moy Afrique def continuer ci at yi di tellu ginnaw ci processus de démocratisation bi. Euh, loolu nag day wóoroo ak li nga xam ne moom la gisoon ci année quatre-vingt-dix yi nga xam ne beneen mouvement la ñu amoon maanaam daanaka dictature yi maanaam la contagion kat yi da doon dellu ginnaaw euh, militaires yi maanaam daanaka seen xel mayatu leen woon sax euh, ñu jël nguur fii parce que xam nañ ne bu ñu jëlee nguur ko téye mais jàngat bi moom mooy lenn rek moom ñu yóbbu ci situation yooyu

jël euh, ponk ak sart yooyu maanaam réviser ko pour continuer ngànk nguur gi ñooñu comme dañoo tënk euh, justice euh, maanaam dominer assemblée nationale dans la plupart des pays dañuy dem ba finalement benn force sociale rek moo mën a ñëw def irruption jàmmarloog ñoom loolu moo indiwaat coup d'état yi coup d'état yi ñëwaat mais coup d'état yi militaires yi ñuy gis nii ci Afrique du dara nous avons ay coup d'état yi nga xam day répondre à des coups d'état électoraux ak ay des coups d'état constitutionnels. Nous dañu koy en tout cas parce que nous ko. mais est-ce que maître est-ce que ces coups d'état là yi nga commencé à faire ça, est-ce que ça ne risque pas de nous ramener à 30 ans en arrière euh, am jafe-jafe delluwaat ci ay conférence nationale ak yu mel. mais nous benn jàngat rek la ñu

nga baal ma ci kàddu yi ñàkk matat bi bi nga xam ne suñu yenn njiit yi moom la am maanaam dañuy dem ba jeexal au lieu ñu sukkandiku ci ponkal charte yi am ngor dem jébbal liggéey yi dañuy jéem a fexe xool réviser waat delluwaat ci seen i kàddu wala delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu digge woon ak askan bi et finalement dañuy dem ba euh, maanaam askan bi ci boppam day gis boppam ci coup d'état yi alors que at yi weesu gis nga ko conférence nationale yi Euh, lu ko sañtoon moom mooy popularité bi nga xam ne moom la ko société civile ak force démocratique yi doon jox. Mhm. mbaa yéen politiciens Sénégal yi du ngeen ñu fi indi li yi xew nii rek mbaa mbaa du ngeen ñu ko mbaa di ngeen ci musal rek. waaw musal ci réew mi loolu moo waraloon ndaje bi nga xam ne moom la ñu amoon comme ni ko waxee sànq ba ngay junju entretien bi euh, ñu dem. Euh, gis ak ndaw bi nga xam ne moo toogal au commissaire aux droits de l'homme fii ci Afrique de l'Ouest maanaam Afrique soowu jant xam nga euh, comme ni ñuy wax ci wolof xoddeeku ndam ngay lakkale maanaam euh, bañ fa demee ci délégation wu F24 bi da nga xam ne gis ngeen ci communiqué bi ñaar nga xam ne ñoo fa teewoon amoon na aussi ay spécialistes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci alerte précoce lu ñuy wax maanaam

non nous voulons encourager lu mel Nous lu tax encourager lu mel noonu ñun ay démocrate lañ euh, dañu mos di xeex ci démocratie euh, suñu mémorandum bi nga au commissaire aux droits de l'homme bi euh, donc moo tax d'ailleurs ñu jóg ci ñetti lañ ko bu ci Nations Unies lu wax face cassé d'une démocratie électorale Madame xar Sénégal ci muy woowee boppam démocratie bi li nga xam ne da koy mbubboo di ko woote te nekk ko mooy lan moom mooy saa yu neexee njiitum réew mi mu tànn kan mooy bokk ci élection. mais pourtant démocratie électorale électorale boobu moo tax euh, ñu nemmeeku ab équilibre ci assemblée nationale tax itam ba ñi nga xamante ne ñoo di ku jegi am ay euh, collectivités territoriales yu bëri ci élection locale yi ñu weesu. waaw mais xam nga démocratie ñun. Euh, mënuñu ñëw di satisfaire à moitié. xam xam nga ñi def coup d'état maître Tine ñi def coup d'état ci Niger teguñ ko fenn euh, Bazoum amul dara luñ ko mënu nous reprocher politiquement ludul euh ku jité won garde présidentielle bi ñu changé ko bëgg fa tek keneen mu coup d'état xam nga loolu tamit euh, c'est compliqué. waaw loolu kenn justifié wu ko comme li may wax man damay analyser objectivement parce que au-delà du fait que avocat là. Euh, pour homme politique là universitaire là, il y a naa jàngat euh, mbir yu mel non. c'est-à-dire dañuy wax lan mooy yóbbu ay dëkk ci situation yu mel noonu nekkul ne dañu koy encourager gis ngeen ñu ñun yëpp dañoo sanc ay parti politique euh, di wuti parrainage wala di xeex parrainage pour mën participer mais yéen a ci teg seen gët euh, ñëw naa RFM ñëwaat RFM ba may xeex loi parrainage bi ñu dem ba cour de justice de la CEDEAO ñu euh, daaneel dogal Sénégal ne du ko jëfee mais loolu bu daanoo lan mooy def bu dee ka nga xam ne moom moo war a wattu aar démocratie taxaw na ne du ko jëfee léegi nag loolu ko yóbbu ay force sociale yi nga xam ne organiser organisé dañuy ñëw jël éruption euh, foog ne ñoom seen rôle la même bu nekkul seen rôle rétablir l'équilibre parce que boo xoolee pour dellu si ci coup Gabon bi dégg ce matin déclaration officielle pour ci ñaari mbir la ñuy wax maanaam c'est pour mettre à terme gouvernement imprévisible et irresponsable des tenants du pouvoir et assurer cohésion nationale. mais pourquoi ñu xaar ba ci am élection te loolu yàgg nañoo ak moom. dégguma mën nga. bamtuwaat loolu pourquoi ñu xaar ñu proclamer ay résultats te fekk ne loolu yàgg nañ koy dund foofu ca Gabon. waaw xam nga da ba damay. jàng bu fekkee ne ñu ngi koy dund d'ailleurs. damay jël ak. discours officiel bi mais loolu yëpp tey comme li ma wax. mais mais même ñooñu même ñooñu euh, damay tollante li Georges wax mais tin ñoom ñi ngi génn ci élection bii lañ joxe résultat yi ñoom nee dëkk ba doxul waaye gabonais yi waxuñ loolu ndax waa ji 64 pour cent ak lu tegal ñoo ko voteel téeméeri gabonais yoo jël juróom-benn fukk yaak ñeent ak euh, lu ko ëpp sax ñoo ko voteel kon ñoom li ñu wax ñoom soldat si bëgg a jël nguur ga jamono ji Gabon ak li askanu Gabon wax wuute na. waaw mais loolu. Euh, peut-être ci fan yi di ñëw ci waxtu yi di ñëw danañ ci gën a am lu leer parce que euh, gis ngeen ko ba processus bi commencé dañoo tagg internet bi euh, arrêté yenn communication yi benn média yi sax xamatuñu woon luy xew Gabon ba yenn organisation yi nekk sous alerte donc tey loolu ay chiffre la dañ ko avancé lu am la wala lu amut foog mu am ay vérification mais lu mënti am comme ni ma ko waxee Gabon mosta xam ay mbirum coup d'état gis nañ ko pays pétrolier la bu am benn relative stabilité bi nga xam ne Omar Bongo joxoole woon na ko tey bu ñu demee ba dëkk yooyu nga xam ne doon ñu foon dégg coup d'état contrairement ay Niger yi nga xam ne am nañu bare may nasara donc Mali ah, ah, ñoom ATT Amadou Toumani Touré ñooñu Guinée gis nañ ko Lassana Conté ak ñeneen Euh, tey yooyu yàgg nañu dégg ay coup d'état mais dëkk yi nga xam ne armée mosul nekk ci jeu politique bi tey lan moo tax mu nekk éruption comme ni ma ko waxee tey dafa am benn double euh, tendance bu am Afrique moom mooy dafa yàgg am ay coup d'état euh, donc électoral ak constitutionnel ci at yi passé gis nga ko Mali ba président demee ba dissoudre cour suprême bi boobu la ñi jël seeni responsabilité ba mais mais loo ci mënti dégg xanaa ay ay voter voter démocratiquement wala bu voter bi taxé suuf sax moo gën ap coup d'état am euh dégg xam nga mbir mi nekout est-ce que dañuy nangu voter bu tax sou parce que euh, voté bu tax sou xëccoo lay indi xëccoo moy indi ŋaayoo ba finalement lolu moy yëngal dëkk yóbbu ay guerre civile wala instabilité mbir mi bu ñu bëggee bu dox bu ñu naxante c'est-à-dire Sénégal wala yeneen dëkk. Euh, Afrique waruñu chaque fois bu élection année amee coow dit élection lu y ci une démocratie ña nga xam ne ñoo génnee démocratie di ko doxal lu tax chaque fois bu ñuy votez, ci ëllëg sa ñëpp mais Afrique c'est très rare que nous voter ci à sa jàmm am ni ñi lois ci seen i activité loolu daf États-Unis moom États-Unis moom dund nañu ab euh, imbroglio électoral

Euh, moy liberté yi nga xamné Macky Sall dafa taxaw confisqué ko Sénégal nekul état d'urgence Sénégal nekkul couvre-feu mais depuis bo jëlee kuréel bu mel ni S24 ëmb lu tey ñaari téeméeri organisation politique ak société civile ci euh, yoon teg nañ ne dañuy manifester ñu bañ né duñu manifester parce que trouble à l'ordre public fay am sans ñu jëmmal ko wax ñu ci yan anam la alors que tey am nañu capacité non seulement encadrer manifestation yi parce que ña ngay xataraayu dañuy dem. mais en tant que euh, borom xam-xam en tant que universitaire. en tant que mm-hmm. xamna politique mom mo mo mo moo mën a nit rek waye yow ku am xam-xam nga euh, jàpp gi ñu japp ay nit jamono euh, bokku mm-hmm. rawati na ci Pastef ga won amna ci yo xamni c'est vraiment discutable amna ci ño xamni euh sen japp gi vraiment mon naa ñak ñoom Bassirou Diomaye Faye ak euh, ñuko nuru waye amna ci ño xamni sen japp c'est justifié am déet. ban euh, du suma tier may wax kan mo justifié wala mo justifié wu loolu aussi mom lañu wax au commissaire au. Euh, non metti nag yaangi yaangi daw débat bi ah. dama lay répondre dama lay répondre objectivement lu ñu leen wax mom moy ñun lu ñaan mom moy ñooñu ñu présenter leen ci kanamu yoon ci ñu gëna gaawé a gaawee wax nga ko Bassirou Diomaye wala ñeneen. ñoom euh, am na ñu nga xam ne ay étudiants lañu wala ay élèves dañu doon dellu si tombé waral ay gaaf ñooñu tey euh, mënuñu leen téye ay weer yu weer dinañuy saytu. xam nga loolu ba Bassirou Diomaye téye gi ñu ko téye ci kaso bi jaaduwul. waaw non jaaduwul loolu xam nga lu ne fang kenn du ko jeex. boo ñëwee de da nga def. waxtaan wax dëgg ca la moom moom ak jàppam boobu ba léegi weeru avril ba léegi ci ay kàddu yu mu yëkkati rek bind ko Facebook boobu ba léegi ñu tey ko ci kaso bi pour lan. waaw ça c'est pas normal amul complexité. xam nga loolu aussi moo tax ñu ne tey Sénégal ci lu ñu bind ci memorandum bi dañuy utiliser détention préventive comme technique pour punir adversaire politique maanaam des fois sax dañuy jël ay ay tuuma teg ko ci sa ndox wóor na leen ne du antu mais luñ ci jublu boobu mooy rek.

mais lu am moom mooy tey dañu jàpp ne mille soixante et un détenus loolu dafa euh, et que dañu war a jël ñooñu yóbbu leen yoon ñoom ñoo def wala defuñu loolu yoon mais quoi qu'il en soit ñu lekk leen wala ñu fini leen mais mënuñu leen nous tey loolu point bi nga xam aussi développé nañ ko ci mémorandum léegi loo leen jëlee foofu léegi. Hmm? loo leen fa jëlee.

jeudi passé nous avons déjà communiqué pour Andou Sénégal et que la plupart du temps aussi l'Union développée du mémorandum, déjà, il y déjà une ONG de défense des droits de l'homme avec de surveillance des traités internationaux déjà il y a une Nations Unies. merci. Wow. Légui, euh, nous avons gisee que euh, mbiri Ousmane Sonko. Euh, euh, ndax euh, mooy coow li gën a rëy ci opposition bi jamono ji ak niñ ko tegee loxo yóbbu ko kaso mu lànk ni du lekk grève de la faim nekk hôpital Sowetas euh, loola moom nu ngeen gisee ni mooy saafara si fi ñu toll nii. waaw loolu aussi yëggee nañu ko au comme représentant au commissaire bi am na d'ailleurs bataaxal bi nga xam ne jëbbal nañ ko ko pour mu transmettre comme par rapport situation boobu léegi man lu ma ko gisee.

tey Macky Sall moo ko yóbbu ci posture bi mu radicalisé parce que Macky Sall moo taxaw xañ leen seen i àq seen i yelleef xañ ko ko moom mooy lan moom mooy maanaam tey boo xoolee bu dee dañuy wax dëgg gis nañu ay universitaires génn ne indépendance de la justice mais ñooñu euh, lu ñuy fàtte moom mooy tey ba président di woo ñenn ñi ci dialogue bi da leen di dugalaat bu ñu ñëwee ñu ñëw dugal leen ne ku ñëwul doo bokk te ñoom fan la ñu nekkoon beneen bi tey bu ñu ñëwee taxaw bëgg a fexe Ousmane Sonko du bokk ñu ne déedéet waaye dissoudre parti alors que procès amul condamnation amul benn enquête. mais mais mais dissolution dissolution parti. Euh, ce n'est pas que sur la base euh, d'un procès lañ ko mën defee. non nekk xam nga nekkul sur la base d'un procès mais autorité administrative buy jël décision daf ko war a caractériser en fait est en droit tey moom vision unilatérale am la jël c'est-à-dire tey autorité ci boppam ministre de l'intérieur bi ak euh, président bi nga xam ne moom moo jël décret bi amuñu garantie d'impartialité parce que yow mënoo ñëw nekk candidat wala yor sa candidat euh, ba pare mais ne damay dissoudre parti wu keneen ka nga xam ne lu mu woote moom ci conception euh, dafa woote ne day résister donc kooku yow peut-être sa posture moo koy yóbbu foofu parce que tey mën nañu wax lu nekk Ousmane Sonko. mais dissolution parti aussi mënul gàllankoor ab candidature. non loolu mën na garantir mais loolu aussi day wone rek état d'esprit maanaam dafa taxaw pour sa faagaagal. Hmm. maanaam inculper la le même jour euh, dóor la mandat de dépôt ay mbir yi nga xam ne amoon na fi amaat fi amaat fi waxuñu ci dara euh, ñu ñëw ñu ne leen léegi léegi dañ dañ ciy répondre loolu mooy justifier mandat de dépôt bi mais loolu boo xoolee ci mbirum yoon ci mbirum en tout cas garantir ordre public mais amul maanaam parce que ordre public saa yuñ ko euh, en tout cas xutee wala ñu euh, euh, porter ko atteinte da nga ko war a garantir immédiatement mais doo xaar ay ati at mu ngi mel ni nit ñëwoon rey nit reyaat nit reyaat nit nga xaar ba fukki juróom-ñeenti at nga ko fukki at mooy prescription bi léegi donc dama lay poursuivre loolu amul maanaam. Mhm. jërëjëf maître Abdoulaye Tine avocat ak euh, président parti USL euh, Union socialiste libérale bokk ci F24 ñu yëndoo ak jàmm. waaw ba ngi leen di jaajëfal ci dalal. ba beneen incha allah jërëjëf euh, Georges.